دارا دفر سمقل دارا دفر سمخل دارا مدفني ممل موتخ مويدا aawuzu billahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñi bàyyi xel ci biir réew mi ak si bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax a baax rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel eh, télé bi nga xam ne moo di télévision mu di TFM tey nag ngeen gis ñu ñu ngi fii ci saam ak Serigne Bara Khouradia moom Serigne Mamour Diarra Mbacke eh, magi mag eh, ñu taxaw fii nag ci buntu kër gi nga xam ne wala buntu daara ji nga xam ne moo di daaray Serigne Mamour Mbacke daara gi nag mu tuddee xaw maamam ju baax di Serigne Mamour jaara waaye nag di fi jàngale li nga xam ne moo di alquranul karimul kitab moom la nekk di jàngale fi nga xam ne moo di daara ji ñi gis ni euh, dende ak penc mi ak jumaa ji nga xam ne moo di jumaay euh, Serigne Bara Khouradia kon xam naa rek dañuy daal dugg ci biir daara ji fas yéenee xam euh, Serigne Mamor naka la nekkee ci biir daara ak nan la yoree li nga xam ne moo di taalibe yi nga xam ne ñoo fiy jàngal li nga xam ne moo di alquranul karim ma kër baay ba ma yee ndaw jël ma jox daara tuut tànk laahoon ba ma yee dem daara yàgg na lool te booba man xawma luy njëriñ ci biir daara aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñi bàyyi xel ci biir réew mi ak si bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax a baax di am mbégte ak kontaan te ki saa yu ñu ànd ak yéen ci émission bi nga xam ne moo di émission ndongo daara yi émission dongo daara yi nag tey ñu ngi fii ci daara yi maam maam jaara Diarra mag yi mag fii ci saam ak Serigne Baara ja ñu fekk si fii ki nga xamante ne sët la ci maam Mor Diarra di Serigne Sidi moom Serigne Baara Khuraja di wuyoo turu Serigne maam Mor Mbacke ñu la tuddee maamam ju baax gi fekk si ko rek fas yéene li nga xam ne moo di ko taay émission ndongo daara yi xam naa balaa ñoo doon li nga xam ne moo di émission bi ñu jox ko rek mu nuyu ak askan bi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel ci biir Mouride TV Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. mbok julli di mbok talibe yi ñi ngi leen di nuyu te di leen siyar bu baax di am mbégte ci jotaay bi di nuyu soxna Fat Sakho ñi ngi lay dolle am nuyoo yaa ngi personnel bi ngeen lepp ñepp euh tay ngeen def lo rafet ngi ñew dox sen tank ngir ñeen ne nemmi ko suñu ngeen na da ngeen di def nemmi ko ndongaal daara yi ak taxaway daara yi am nañ mbekté ci loolu bu baaxa baax Euh, ñu ñi ngi rafetlu rek fi ngeen ñëw it di leen wax na ne ñëw fi fi ngeen ñëw seen kër la seen kërug bopp la ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax ne seen kërug bopp ngeen ñëw. sëriñ Mamour Mbacke euh, ci kàddu yi am solo yu nga xam ne yëkkati nga bu matale bu sell boobu nga xam ne nuyu nga ñu ko itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax euh, sëriñ bi balaa ñëw door rek li nga xam ne moo di suñu laaj bu njëkk sëñ Mamour suñu bëggee xam kan mooy sëriñ Mamour Mbacke. ah ndonga lii ngeen di waxal de nga xam ne moom tey daa jiite tuut tànk yi nekk ci daara ji ndongo yi ki jiite tuut tànk yi ci daara ja mooy Mamor Mbakke mii di wax a yow ah, suñ Mor Jaara la ñu tuddee ñu jël daara ja dippewaat ko suñ Mor Jaara nun nag dañuy alali borom saam boo na bëggee xam ndax nun sun maam ji nga xam ne moo jur sun waajuru jigéen dafa gàddaaye woon Jolof ñu koy wax Malick Fall ànd ak Serigne Touba bi Malick sëriñ Touba bi mu ñëwee daa jële daa jël maalik Fall jox ko sëñ moor Jaara borom saam mu di ko muritu ba mu ko wàccee nag la ko sancal ab dëkk muy dëkk boram mu lo mu ñëw ñu ko wax dingaali ca gori borom saam la bokkoon foofa la newoon ba ni mu wàccee liggéey fa domam ji ñuy wax mut saxiir sëñ mut saxiir mbay lañ ko tudde woon moom moo moom meññ suñu waajur wu jigéen ñu jëloon ko indi ko ci barab bi joxe ko fi addiye dogal bañ am ñu ci ñun ñi ak sama rakk yu baax yi nga xam ne ñoom nekkal suñu waajur nag mooy mook sëriñ seex Baara ñoo bokk lépp euh, sëñ Cheikh sëñ sëñ Baara Xuraja sëñ Mor Jaara yaakaar naa loolu moom neex naa xam sëñ Mor Jaara euh, mook sëriñ Tuubaa ñoo bokk lépp ñoo bokk ñoo ñoo bokk sëñ Maam Mor Anta Sali bokk soxna Jaara Buso tawfeex jooju nag ñun moom lañ am ci ku tedd ki ndax euh, li mu bokk ak borom saam yàlla dogaloon mu bokk kenn noonu daal xëy na noonu lañ foofu lañ bokk ci askan waaye ñun daal ñu bëgg laa wax na la ñun dongaay borom saam lañ yoo xam ne ñoo nekk ci toolu borom di fa di fa jërëjëf Serigne Mamour Mbacke ci leeral yi am solo yu nga xam ne leeral nga ñu ko kan mooy Serigne Mamour Mbacke yaakaar naa leen nañ ñi di sëtëb maam Mamour Diarra Mbacke borom di sëtëb tamit ki nga xam ne moo di eh, Serigne Bara Khourédia yaakaar naa leen nañ sëñ bi eh, ba tey rek ñuy laaj sëñ Mamour ñu fekk la ci biir daara ji nga ne sa maam nga ko tuddee sëñ Mamour muy sëñ Mamour Diarra moom lañ la dippee moom nga nga wëlbatikuwaat tamit tuddee ko li nga xam ne moo daara ji ndax mën nañu xam lan mooy cosaanu daara Serigne Mamour waaw eh, cosaanu daara ji de xam nga noonu sunu waajur daa am fu nu joxe woon muy Serigne Modou Cheikh moom soxna Fat Ja ñu koy wax suñ du Cheikh waaye moom suñ Baal Khourédia ñu bokk lépp yàlla dogal na noonu ba mu na ko joxee foofa lañ nekkoon ba nañ fa jógee 2000 daal la ñibbisi bi mu ñibbisee yàgg naa ñaari at laa fa def wala ñett sos daara ji muy 2005 yàlla dogal na it mm, dara taxul ñu sos ko lu weesu noon dañoo yar ci jàng ak jàngale te xamuñ lenn lu du loolu gannaaw bi ñu jógee ca daara ja Eh, jàng xam-xam yàlla dogalin ñu nekkoon ci biir daara joojee ñu ñu yare woon daa jàngale alxuraan moo tax bi ñëwee fi it xamuñ lu dul loolu moo tax suñu xemam teef bépp rek nekku ci lu dul jàngale jàngale moo tax ñu sos daara ji te ku tedd gi it lim gënoon a bëgg ci dëkkam bi mooy ku fi sax toog fi di sa di fi jàngale alxuraan mu mel ne ku fi nekk rek mel na ne yaa ngi ci bëggu sëriñ bi loolu rek lañ xemmee moon moo taxoon ñu sas ñu sas daara ji. sëriñ Mamour ci leeral yi am solo nga xam ne leeral nga ñu ko itam euh, dañu wax rek tarkal la sëriñ Mamour Mbacke euh, depuis 2005 nga sos li nga ne moo di daara ji euh, sëriñ Mamour bi ñu koy sos yéen jafe-jafe nga ci moom nga ci nekk ci sa ginnaaw bi ngay sos li nga xam ne moo di daara ji kan moo la ci gunge woon sëriñ Mamour. waaw soxna Faati xanaa sant bu baax rek xam naa jafe-jafe yi moom toujours mi ngi bari waaye bi ñu sos daara ji mën naa ne la yenn ñeenti dongo ñoo fi jiitu. ak sëriñ Ahmadu mi moom laa waroon a jiite sax ci siyaar bi ndax mooy sama xalifa di sama sëriñ di sama lépp moom xanaa sax damaa bëggoon day day day day day fàtte goo xam ne ak fonkel la waaye moom bu ma bu ma doon tëj sax moom laay moom ci laay ñëw. waaye mën naa ne la doomam ji ñuy wax soxna jaara ak yeneen ñetti tuut tànk yoo xam ne ku ñu wax sëñ daam mbay moo leen jur yaakaar naa su ma sax euh, sëñ daam euh, am na ci doomam joo xam ne maa ngi la ko doon wax keroog na la soxna jaara bokk na ci ñi sës daara ji tey jii. bi mokkale alxuraan bay jàng xam-xam ba dugal ko ci asar bi muy jàng ci li ma gën a xemmeem ci aw doxee na ko yaram ak waajuram bu baax wa nga xam ne alxuraan rek la doon dundu mu doonoon jigéen nga xam ne buñ daa gàmmu fii sax di jàng alxuraan maa ngi moom daanaka ñoo daa séddoo kaayal bi ci guddi gi doom ji mu fi bàyyi nag moom laa am xemmem te ba yëkkati ko jox jox ko sëriñ Basiru mais nga xam ne mooy sama rakk di lépp ñeent ñi jiit woon ca daara ji moom moom ci la bokk woon wala juróom ñi fi jiitu mu mu tuuti woon lool waaye nag ñu am gëmu ak mat foofu am mbaar mu ndaw laa fi defoon waaye yàlla dogal na gis nga ko nii nga ko fekk li fi mokkal sax maanaa mënuma ko lim wax dëgg yàlla incha allah sëriñ Mamour ci leeral bu am solo boobu nga xam ne leeral nga ñu ko itam ci li nga kala ne moo sos ak daara ji euh, am na solo lool tarkal sëriñ Mamour diirab 2005 ak léegi si nga sos daara ji ci limop ñen ñeenti gone ci nga sosee woon li nga xam ne di daara ji euh, tarkal tey ñu fekk fi mbooloo mu takku lool sax ndax mën nañ xam Mamour ban gëm-gëm ak ban pas-pas nga am ba daara gi doy nii mu doy fi mu toll la 2005 bi ma ko kiyee ki fi njëkk a wata alxuraan sax mooy soxna Ayda Mbaye nga xam ne mooy magi ki ma lay wax noonu nga xam ne ci 2009 la daal di wat nga xam ne bi ñu dee 2005 bu yàggee ci neuf rek moom yàlla dogal na moom mokkal alxuraan ci ñi te dañuy jàng di ñibbi waaw waaw te jigéen la it moom bu jigéen ji fi mu njëkk mokkal alxuraan moom lay doon ka ko ñaareel it sama rakk la joo xam ne ñoo bokkoon ndey ak baay mooy Serigne Cheikh Baara lañ ko dubbee sax Serigne Cheikh Baara moom it moo fi moo ci topp moo fi moo ci góor ñi moo fi mu njëkk a wattu alxuraan. ban gëm-gëm la sëñ Mamour am am ci biir daara ji ak ak taxawaay ban taxawaay la taxawaay ba daara ji euh, toll fii mu waa egg fii mu egg. waaw gëm-gëm bi de du dara lu weesu gëm ne dama bëgg dama bokk ci ñi war liggéey liggéeyal Serigne ci biir dëkkam bi te lim gënoon a bëgg wax naa la ko léegi mooy jàng jàngale alxuraan lu gëm-gëm boobu rek la amoon waaye amu ci woon beneen gëm-gëm. Eh, gëm-gëm boobu maamoon nag ci la ma ko baax ki dimbalee ba daara ji dox ba si fi mu agsi mën naa ne la gone yi sax dañ ma tooñ naan ma fi am université la ndax damay bari sëriñ soo ndaw soo xam ne ay tut tànk lañ leen di tuddee dañ leen di jël buñ jàngee ba ñëw sax di leen jël di leen fay ñu jàngale ci biir daara ji te li ci gën a metti mooy fay gi dong yi fay amul solo ndax da ngay gis ñoo xam ne ay ñaar téeméer la ñu fay ke gën a bari lu muy la te ñu ci yëpp lépp sax bo say doom yi bàyyi leen war a fayal waaw ah, nga war leen a jàngale léegi yow ngay profité saa boo wer dee la nga fa war lool jàngkat yi moom da nga fexe ba jox leen ko ñoom it nuñ doxee baax na. loolu moom ak engagement la waaye ay gëm-gëm moo tax màgg foofu màgg. ni ko suñ Mamour waxee rek gëm-gëm la waaye nag du alal ji nga xam ne moo ci nekk ndax comme ni mu ko waxee rek du nekkul ko ne euh, xaalis bu ñu leen di fay moo tax daara ji egg fi nga xam ne fi la egg waaye nag comme ni mu ko waxee rek bëgg Serigne Touba ak xam ne lii la Serigne Touba bëggoon muy jàng alxuraan ak jàngale ko ba tax na moom mu nekk ci di ko wóyal ba euh, lii mu ci am nii tey ci ay taalibe euh, mu am ko ci taar kàlla suñ Mamour am na solo lool ba tey rek ñuy laaj suñ Mamour ndax daara ji daara ay cosaan rek nga ko def wala am na itam li nga xam ne moo di daaray internat ci biir daara waaw xam naa nag biñ koy ubbi li nekkul gënoon a nekk suñu mbir mooy internat waaye xam nga ñun gannaaw dañuy tudd di tudd sëriñ bi am ñoo xam ne dañuy dañuy doyloo di jël seenu njaboot di ko jox ñu di leen yar di leen jàngal ñu fare fi na nga bëgg internat di ko doxee doo ko mën a doxee noonu ndax yow dafa am loo xam ne moom la barab bii baaxoo woon lu wuuteeg loola donte nag am na ñoo xam ne dañuy tudd internat ñoo xam ne dañ fi ne waaye yaakaar naa du ëpp ay ñaari nit ñett ñoo xam ne ñoo fi fare nga xam ne duñ yalaane duñ duñ duñ duñ defee dara ci kër gi la ñuy nekk waaye ñi ci ëpp daal ay yar yarluwaan lañ te seeni doom seeni wayjur joxuñu ko ñu war leen a yar jàngal leen alxuraan te kama yar da daa wax ne dara àddina jërut nit nekk ci yow ba jóge fa yées ñam jóge woon looloo tax moom lépp daal moom daare Serigne Boor Yaara lañ ko joxe te daaray borom saa moom université la woon boo xam ne ku ne daa jóge fu ne dafay jàng si loolu nag daa ne moo ci feeñ ba li wër koñ bi ñëpp dañuy jóge ci barab yu sori sax di ñëw di fa jàngalu bu ñu wàccee di dox lu bari di ñibbiwaat. waaw ngir xemmemte bu ñam ci daara ji. incha allah sëriñ Mamour am na solo lool mu mel ni rek da nga ne am na ñoo xam ne dañuy jugee ci biir koñ bi ñii dañuy jugee fu sore sore foo xam ne day génn sax koñ bi di jàng fii nga xam ne moo di ci biir daara ji ndax euh, maanaam sëriñ Mamour mën a jàngale gi mën a jàngale moo sabab loolu wala dañ fi ñëw ngir jëmmal ki nga xamante ne nii mooy moom mooy mooy sëriñ Mamour maanaam comme li nga bokk ci askanu Mbàkke comme ni nga jegee sëriñ Tuubaa loolu mooy sabab bi wala lan moo tax euh, ñu bëri génnee ci fu sori di ñëw ci biir daara ji am na ci moom dañ ci sant yàlla bu baax rek ndax danaa dégg sax ñoo xam ne dañ naan daara yam suñ maam Mor buñ fa yóbboo suñuy doom buñ fa xasee jógee buñ xamul dara dootuñ xam dara loolu moom danaa dégg ñu di ko wax wallaahi lancim ndax wa ma saxit na laa be ma xalim na yaakaar naa am nañu sant caam ñii ñoo xam ne euh, seen waajur damay dégg toujours ñu di ko wax ma ku ñu wax ku ñu wax ku ñu wax baara caam yàlla na ko yàlla yërëm waaye ku ñu wax suñ suñ fàllum suñ mu demante mooy sëriñam waaye nee na ko laaja ak njabootam fu ñuy jàng dana ko kër eh, waa kër boroom saam lañ mu ne ko ah, ñooñu day borom mi xam-xam lañ ñoo xam ne ku fa yóbbu sa sa sa sa sa njaboot sam xel war naa dal xëy na nag ñu bari nag xemmam téef boobu danañ ko am ba tax ñu koy dabu si waaye nag ñi ma fiy tegi nag ñu ñu saytu la ñu doon ñoo xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo xam-xam bi lañ am am am bi. Mm, ba tax kuñ fi ñëw bu fi sa wërsëg nekkee ca wàllu xam moom da nga xam li nga war a xam loolu nag Serigne Bassirou mais maa ngi ko ci sant bu baax a baax a baax xam naa àgguñ ci loolu sax waaye nag dama ko ci dama ko dama ko dama ko ci dugalaale rek ndax li tax ma doyloo ko ba bàyyi ko fi ba nga xam ne su fi nekkutee day mel ne maa ngi fi lépp ak njàmbaaram ak mën a jàngaleem ci lay feeñ donte nag daara yi bari nañ fi léegi ndax waaye biñ fi biñ fi sos nag moom daara yi bari wu fi moom ndax yaakaar naa booba jenn la woon fii moom fii ñu toll nii waaye nag fi mu nekk moom bari na moom ci ay ñii suñu doomi baay lañ ñii suñu doomi bàjjan waaw incha allah sëriñ Mamor ci leeral bu am solo boobu nga xam ne leeralal nga ñu ko euh, taarkaala rek la ñuy daal di wax euh, am na solo macha allah xam naa sax ci loolu la ñuy daal di tab bi ndax mën nañu xam euh, ndax gis nañ ne daara ji mbokki soxna yi ñoo fi ëpp foofu li ci ëpp ci lim bi yaakaar dégg nañ ne mokkal nañ li nga xam ne moo di alxuraan soog a génn fii wala wàcc nañ wàccaat ba toll ci li nga xam ne moo di béqi soog di génn fii nii lan mooy lan la sëñ Mamor ngaan naa yow ba soxna yi buñ fi xasee dugg bala ñuy génn mokkal wala ñuy wàccaat ba tàmbalee beq ak njàngam jigéen ni ko waajur yi doyoo dalee euh, ban secret la sëñ Mamour am dimbala ci <laughs> mbokki sëriñ yi nga xam ne ñooy jàngale. soxna Fatou Sakho boobu de mel na ne moom mel na ne xam naa du bari secret waaye dafa am loo xam ne farlu waajur yi da ciy bokk ndax waajur wi nga xam ne dafa bëgg doomam jàng ba tax ab télé sax du ko wut këram nga xam ne fu ñu toll rek bu ñu wàccee ña daara ja di kër ga ah, am na fii am na fi suñ bas mee ma lay wax ab goroom tey ji yàlla dogal na teleem duggul këram te dara warul ko li weesu nee na bëgguma maanaam njaboot gi dara di leen gàllankoor ci wàllum njàng xam nga farlu googu ne bëggu ñu bari ame wala ñu mel ni noonu nga xam ne am na ñoo xam ne dañuy jiitu ñu ci sopp seen gannaaw suñ farloo ci wàll googu buñ gisee ñooñu di avancé rek gone yi ci des dañuy ci ñoom ba bëgg li ñuy am ci ndam ñoom ñu am ko daal bokk na ci li ma dimbale nag ci wàllu googu moom xam naa ne loolu ca la ndax soxna si may wax léegi génne fi soxna jaara ñoom suñu waajur yee bokk ndey ak baay soxna sëñ Abdou Thiatay waajuram waaye wàcc nañ ñaari yoon door a dem ci école ba mu bare ci ñoo xam ne it foofu lañ nekk waaw bala ñu dugg ci école moom danañ wàcc wàccaat wala ñu mokkal door a dem am na ci am na ci ñoo xam ne nag xëy na duñ jaar ci loolu waaye na yàlla dimbale na ma ba njaboot gu jigéen gi moom li cëpp moom seen farlu gu waajur moo may dimbale waaw moo may dimbale ba liñ ci yéene ñu mën ko amee noonu waaw xam nga fii nag dee góor ñi bari na ñoo xam ne buñ mënee dawale sareet dañ dañ leen di génne ñu dawale sareet wala ñuy doxee ay yoon wala yu demee noonu moo tax duñ fa xaar sax mokkal ga looloo tax moom. Ah, Serigne Mamour kon ngeen gis na mu ne secret bi moom du ci moom ci waajur yi lay farlu waajur yi ñoo koy sabab man foogoon naa ne sax loolu amut wala boog bëriwut lu ma koy gis waaye am na ci biir biir daara yi nga xam ne moo di daara Serigne Mamour Mbacke maanaam waajur yi dañuy dañuy farlu ba li nga xam ne moo di ab télé sax duñ koy gën di ko dugal ci seen biir kër ndax bëgg seen njàngam doom mën a euh, jëm jaar yoon jaar yoon gi nga xam ne bëgg nañ mu jaar yoon euh, xam naa loolu dañ ci soññaale profito soññaale suñu waajur yi nga xamante ne ñoom ñooy nga xam ne ñun ñooy ñun daara man ñoo jàppale ci l'ultime ndax yaakaar naa l'ultime bokk na ci li nga xam ne daf ñuy jàppale bu baax a baax a baax euh, sëñ Mamour ñu continuer di laaj ndax gis nañ ne ndongo yi takku na ndax mën nañoo xam ñaata ci ab lim ñoo fi nekk ci biir daara ji ak euh, ñaata ci ab liim ñoo fi gëta mokkal li nga xam ne moo di alquran waaw lim bi moom day mel ni day day limoo ko wàññi ko waaye nag man li ma ci jaaxaleen mooy toujours dama koy faral di wax. fi boo gisee koo xam ne dafa génn doomam ca semaine booba lu ëpp lu ëpp ña fa génn woon ñoo ñëwaat man moo ma jaaxal moom loolu moom wax dëgg yàlla sant naa ci sëñ Tuubaa waaye yéem na ma ci nag. waaw ndax di diir diir bi mu tàmbalee dox bay ëpp ay 60 ba 100 yëg naa ne saabu ñaar génnee wala ñett dem ca ba wala lu demee noonu maanaam double type loola daanaka day ñëwaat waaw fi mu toll nii moom wóor na mën a la jàng moom ëpp na téeméeri téeméeri nit moom waaw ñi nga xam na ñoo fi fare ne moom lu mu néew ne moom mën nañ ñaar fukki nit. wala eh, ñaar fukk juróom yoo xam ne ñoo fare ci biir daara ji maanaam dafay sore waaye ñi jàngee ñibbi moom boo leen xoolee wóor na ma ne mën na 80 moom waaw sëriñ Mamour Mbacke am na solo lool ci boobu leeral euh, mu mel da nga ne ñi nga xam ne ñoo faree ci biir daara gi ñibbiwuñu euh, seen ab lim toll na ci lu doy nii ñaar fukki ñaar fukki xale yoo xam ne ci biir daara ji la ñuy féete ak juróom euh, ci biir daara ji la ñu féete kan moo yor dundab ñooñu dañuy lekke ci kër gi wala dañuy génn di def li nga xam ne moo di mooy di ndongo mooy baaxam ndongo muy génn dem yelwaane ji wala nan la ñuy def bay lekk comme balaa waxtu jàngee jot. waaw ñoom nag ñu ëpp ci ñooñu. wax naa la léegi ne la ñi fi dul yelwaane moom bëriwut xam naa ëppul juróomi nit waaye ñi des moom danañ yalwaani waaye ci kaw seenug yalwaan googu ñu yalwaan ñoom amul lenn loo xam ne des na leen ko sart lu weesu buñ jàngee fajar bam leer ñu dem yalwaani lu ñu def ci seen i biir ñëw ñu ci bari sax seeni biir kër mm, waajur la ñuy dem ndax ñu jëpp ñëpp seen waajur ñoo nekk ci koñ bi waaye nag buñ faree foofa ci ay jigéen nekk fa seenum njàng doo doxee noonu moo tax ñu faree ci daara suñ demee ba bam naaj dañuy dem foofa jëli fa seen i kafe seeni mburu ñëw so anje jotee seni poten ndonga lañu yobbu ñu yóbbu ñu tibbal leen daanaka ñu ñew way amul luñu ñu leen di war lol wala ñu naan leen indi leen nang wala nang lol mo amu ci bi daara ji wa gone sa fi ne léegi tey bo oh, boo boo leen xoolee sax léegi tey gone yi ndongo yeeg ñi fay faré ñëpp fi ne ci soxna sa lañu dem jënd ay crème yu dem non lol mom ngir japp ngir ngir ñaka am aw metti ci bir bo leen fekke fi sax da ngay melni ni ay moralam yaakaar naa keroog fekk nga ak ak noom non lol lañu doxé tassir dama len di wax na len ab donga wala xalé mu ñeme la moo gën mu ragal la moo tax fi ne suñ wàccee bu ñëwee fii nii ñu def nii ci sama wet nii ñoom ñëpp noonu la ñuy def ah, di boolee ka kafa kare duñ nangoo duñ nangoo dem fenn bari na ñoo xam ne sax bu ñu jàngute daara jëlee leen gën a sax seen biir kër waajur tatkalla sëriñ Mamour Mbacke am na solo lool ci leeral yi nga xam ne yaa nga xam ne moo nekk ci biir daaray Mamour Diarra am na solo lool tatkalla euh, sëriñ Mamour euh, ndax comme ni ñu ko waxee lu doy ni téeméeri xale bu ñu nekkee ci biir daara di jàngale ndax lu lu mel ni wàllum gouvernement bi dugal nañ seen loxo ci daara ji comme di la dimbale ci wàllum jëndam téereek euh, di la dimbala ci ak dund wala lenn ci kilifa diine wala lu mel noonu amagoo lu mel noonu nag ñun amuñ ko moom wax dëgg yàlla nag jamono yu Ablaye Wade moom amoon naa eh, ñu ma xawoon naam dara ci relation ba nga xam ne su màggal gi jotee danañ am edd yuñ ma jox ci ceeb edd eh, yoo xam ne dinaa ko am ci ceeb ci wàllu ceebu màggal waaye ba nguuram jeexee laa noppeetee ab lu mel noonu lu fi nekk nag ñun ndimbalul sëriñ bi mooy ñu ci jàppale bañ man ko am waaye nag saa bu màggal jotee it yàlla dana ma dimbale maa ngi wërsëg boo xam ne dinaa fi jënd ay nangami saako ceeb yoo xam ne moom laay teg ci biir magasin bi ñu koy dundee ba buy jeex dana sori la ca dolli ko mooy daara jii day jur yeneen daara ndax jur na daara joo xam ne maa ngi ko am ciy muritu gasaan maam joo xam ne ma nga fee ma la doon wax léegi sama tool yi maam yi muy dingaali ñoom it ñuy bay di am ñu fay jànge yoo xam ne mbay ma ñuy bay buñ noppee danañ ko indi ñu ñu bokk na ci li ñuy suturlu. sëriñ Mamour kon daal daara gi nekkul jenn daara ñaari daara ndax fee nga xam ne moo di sa dëkk maam itam ubbi nga fa li nga xam ne moo di daara ñu ne fay jàng alquran ak di liggéey li nga xam ne moo di am mbay euh, am na solo lool tarkalla sëriñ Mamour euh, ndax ndongo yi lim bi nga xam ne wax nañ ko fi ne moom noonu la ñu toll am na kuy dimbale sëriñ Mamour ki njàngale mi wala amu ci ndax jël nga li nga xam ne ay jàngalekat lañ di leen fay ñu lay dimbale ki njàngalem xale yi wala yow rek yaa ko yoral sa bopp. nga loolu moom mënul né sax luma téméré do nga ben loxo yor leen wala dana jafé lol waaw bu ñëk dana jël luma ma ñetti kat ak man maa fi nekk am jot dana ko jël di leen fay par wér waye jamono yi li ci ëpp Serigne Bassirou mé mo fi nekk ak goné yi nga dañoo ci bir daara ji ndax daara yi non lay doxé ndax ben gi dana metti waye nak bo ci saxé ab dir dana dem ba lepp lo xamné da nga ko warlo li cëpp dalay wacc ngir ñi nga xamné ndax amna ci sama doomi bopp yoo xam ne fi ne daanaka mokal nañ ci ay jigen bay ba li cëpp fi né ci ñi yor daara ci lañ bok ndax ña nga di déglo ma tudd leen ay soxna Fatja ak ak seeni morom yo xamné ñi fi nek yu mel non nak mo di ba la nga da fay do ko mëna fayati waye Serigne Ba Serigne Bassirou rek mom mom ngay warlu li nga xano mom ngay warlu ak mom ñi ci des nag ñoo koy jàppale ci biir daara kon Serigne Bassirou mooy ki nga xam ne moo lay jàppale ci biir daara ak ñenn ñi ci sa njaboot gu nga xam ne li nga xam ne moo di alxuraanul euh, la ñu bëgg ci yow nga ko ci waajur yi nga xam ne ñoo ñu jur ñun ñun ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi rek euh, li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo muy soxna yi ñoo fi ëpp ci biir daara gi ñuy jàng alxuraan te gis nga waajur yi ni ñuy def suñu tàmbalee jàng ba nga xamante ni ñu ngi sori ki njàng mi rek euh, lu ci ëpp dañuy daal di génn na dem leen euh, ci kër yi ngeen dem sëy daal ñuy utal borom kër bu ko defee njàng ma day daal di yàqu euh, loolu lan nga ci ñaax waajur yi nga xam ne ñooy def lu ni mel. Eh, soxna si laaj nga ma daanaka laaj bu mu gën a sawar a doon sax ndax fi ñu toll li ëpp ci daara ji yaa ngi ay jigéen lañ. te li ñu gën a mett mooy waxuma waxuma waxuma seenum njàng mu àgg waaye dañuy dem ba yeewoo ci njàng mi ñu génn leen dugal leen ci école yi wala ñu dugal leen ci leneen yoo xam ne da naqare waaye doo ci man dara ndax nit ki juróo maslaa rek nga am sa diggante ak moom waaye nag boo diggee mën a la tey ji noppalu gi ñam mooy la ña la gën a jege fa tey dañ dañoo toll ci mokkal di la jàppale muy say doom ak lenn ci say jarbaat yoo xam ne ñu ngi ci biir daara ji waye amna ci ñoo xamne manam sa buñu bu ba mokal alcorane ndax amna jëm jëmm xamne mokal na alcorane ba bind kaamil bañ war ko top ta xaru fa topp top kaamil ba ñu man mané ko ba génné ko mu dugg ci école yi xam nga lool neexut nonu ngay amé ñoo xamne dañuy dem ba mokal alcorane wala ñu dem ba wara mokal mokkal ñu génne leen te ku tedd gi daana wax ne ku mën na mokal alcorane fexé ba alcorane hmm amul lu ko jërul ci adina waye nak sag na ko ba mu ñàkk lu jar fekk ko di dox ci kaw suuf si xamu ko kon nit ki ki nga saytu nag ki nga saytu nag moom mën na mokkal alxuraan yow ñu ñu dox sa diggante ak moom ba mokkal alxuraan soo ko waxee soo ko waxu dana la métti dana la naqari loolu moom dañ ci jànkoonteeg lu yu métti métti ndax doo xam ak gëm-gëm la doo xam lu mu doon am na ñoo xam ne moom xale yu leen di sonal ci kër ga moo tax ñu leen di joxe ca daara ja kon ku mel noonu bu demee ba mën a doxee ab yónneen wala mu mën leen liggéey liggéeyu kër dañ ko yomb a ki nga xam ne am na gëm-gëmub jàng nag moom lu fa doomam yàgg-yàgg du ko xool lu mu mage mage du ko xool moom day fas yéene euh, la nga xam ne moom lay sàkku na ko amee na mu ko bëggee waaye nag buñ sañoon waajur yi danañ diloo ci seen xel te xam ne euh, euh, soxna soxna Asta Walo Mbacké jigéen la woon maami ku tedd ki la te daa daa jàngale alxuraan ni ko góor ñi jàngalee. te tëbu tëb jàngale ko ndax mu bu jiitu wutoon ci jéem koo xam la ba xam ko ñu tàggat ko ci ba man ko du ko mën du ko mën xam nga bu ko bëggee mal toujours damay wax gone yi jigéen ñi ne leen war ngeen a mën sanc ay daara di fa jàngale même bu ngeen nekkee seen biir kër di fa sëy sax war ngeen mën di jàngale alxuraan di di fayu ko war ngeen a toog ci seen biir kër yooyu di jàngale alxuraan di fayu ko ndax moo gën liggéey jigéen ci yéen ndax li ñuy wax mbindaanu moo ko gën ci yéen te bu ngeen jàngalee yéen am ngeen xam-xamub jàngale kon boobaa lu ngeen cee sàkku da ngeen ko mën a am kon li am na ci loo xam ne gëm-gëm la te loolu bu ko waajur yi gëmloo woon gone yi rek day yomb ci ñoom kon daara jigéen yi sax day mel ne day dem ba moo gën a not daara yu góor yi yor te fii moom wóor na ma ne ñi jaar ci ñun moom du ndamu waaye nag borom benn ji ma daa wax ne bu wéree day nuroog ndamu waaye nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax ba nga xam ne eh, bare na koo xam ne bu fi jugee moom jàngale du la tëmu soo bëggee jàngale moom dana yomb ci yow loolu moom leer na ma naa ñi moom dañ ci am yéene te na am na ci ñoo xam ne sax damay dem ba bu ñu wàccee ñi xaw ni bu ñu wàccee ñaari yoon dama naa leen nañ leen tàmbalil téere yu ndaw yi waaye bari na ñoo xam ne ku ko tàmbali balaa xa sax nga ko fi dem cee yokkal wala nga dem ci leneen loolu da lay metti waaw bokk na ci li xam ne moo di jafe yi nga xam ne day nekk ci biir daara yi euh, mu nekk nag li nga xam ne lu jar di bàyyi xel la ñu koy wattandiku bu baax a baax a baax a baax ndax euh, bokk na ci li nga xam ne day suufeel am jàngam alxuraan ndax dem ba tollu ci mokk wala nga dem bay tollu ci bindab kaamil ñu ne la kaay dem sëyi wala kaay dem jàngi méccam jigéen wala bu dee ku góor ki ñu ne la kaay dem jàngi mécca euh, te mottali woo li nga xam ne mooy di alxuraan yaakaar naa éeréel passé wu ko kon na ko waajur yi bàyyee xel bu baax a baax a baax comme ni ko sëriñ Mamour Mbacke waxee kon xam naa sëriñ bi eh, li des ci waxtu wi ñi mayoon eh, bëreetut eh, xam naa rek ñu jox la nga joxe li nga xamante ne ni bëggoon nga ñu ñu laaj la ko te laajuñu la ko wala mu doon li nga xam ne loo bëgg a def ab yóbbal la ñu tëjee ko li nga xamante ne nii moo di émission bi sëñ Mamour. waaw xam naa xam naa gannaaw gannaaw gannaaw bu ma soññewaatee sama mbokki sëriñi daara yi te xam ne dafa doon liggéey boo xam ne liggéey bu sew la bu bu bu am njariñ tam bare ay gàllankoor. ndax euh, comme que euh, comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ki gën ci yéen mooy ki jàng ba noppi di jàngale kon xam nañ ne ay caaxaan du ko def waaye nag am na ay jafe-jafe muy yi ñu doon leeral yu bare yu mel noonu waaye nag ku ci nekk te gëm ko te jàpp ne liggéeyal Serigne Touba rek nga ko mën a defee woo ci lenn foo bëgg mu àgg fa dana fa àgg ndax la ciy firnde mooy lee nga xam ne fekk nga ma ma tàmbali ko nii bi ma demee ba bëgg a dolli ay néeg ñu bari dañoo jàpp ne damaa denc ab te war na jëmmi suñ moor jaare mi moom lu dul moom dara denc ma ko waaye nag man am naa am na am naa am naa ne nee naa lu ma bëgg lu mu a doon rek wóor na ma ne du ma ci am jafe-jafe ca sens rek laa ko amee laa koy amee na ma ko bëggee loolu moom leer na ma moom waaw waaye nag ma xam ne ginnaaw ku nekkal yàlla yàlla nekkal la li ñuy nekk buñ ci ragal buñ ci am ak ak ak ragal te xam ne yàlla rek a fi nekk yàlla ma fi newoon démb moo fi nekk tey mu daa dimbale jaam yi moo fi nekk ba tey te lislaam naka jekk njëlbeenam da sew wax naa la léegi bi ma tàmbalee barab bi ci ñetti nit ak ñeenti juróom laa ko tàmbalee mu dem bàgg fi waaye nag soo ci amutoon soo ci amutoon farlu googu ak bëgg-bëgg googu jàpp naa ne doo ak si fii te nee naa la waxuma la daara ji waaye daa jur yeneen i daara ah yoo xam ne xëy na jumbul bis mën naa ñëw ñu dox ba egg fa waaw waaye nag ñu ci sant yàlla bu baax a baax ah, te xam ne ñañ bàyyi foofa Ah, dañuy da da ñooñu ñooñu saytul ñooñu ba ñuy jàng démb di barki démb laa fa jógee démb barki démb léeg-léeg dama naan yoloo si nii dafa dem fii ma wax ak fii ne maa nga am jeneen daara joo xam ne fële fële fële la nekk ah, fu ñuy wax ah, booy dem dindi kii mbake ni ñu koy waxee Mbacke bari waaw donte don donte man ci sama bopp nekkuma fa waaye sama benn taaliba moo defa daara ji ba mbàgg teg ko ci sama loxo ma wëlbatiku wut koo xam ne doy na ma mu yóbbu ko fa mu fay jàngale kon loolu lépp xam nga day mel ne lépp ca barab yi la jógee waaw loolu it sama rakk yoo xam ne ñoo bokk baa sama waajur lañ ko tuddee moom laa fa yóbbu waaw. waaw su ko defee daal moom ñu doolee sant bu baax maa ngi sant Serigne Touba nag di doolee sant borom saam mi nga xam ne moo ma boole ci Serigne bi waaye di sant suñu waajur yi sa soxna bu sa faal mi nga xam ne moo ma liggéey liggéey boobu ba tax may wuyoo Mbakke te te xëy na buñ ko fi indi woon bu fekkee matutoon ni ko ay waajuram bëgge woon xay na ñun du du duñ duñ fi am sag bu toll noonu waaye nag ñi ngi koy sant bu baax ca taxawaay yu rafet di sant uh, sama sama sama xalifa bopp nga xam ne mooy sunu sëriñ di suñ lépp muy sëriñ Ahmadou Mbakke uh, moom nga fekk noonu ca garab gi mu toog waaye ñu koy sant ci taxawaay bu rafet waaye nag di sant suñu waajur woon ndax rëcc wuñ fam ñu jaarale woon muy suñu waajur wam ñu joxoon teg ñu ko ci ay loxoom muy sëriñ Modou Cheikh yal yàlla fay ko ab xolam te fay ñom ñëpp bi barakati xaadimul musa barkeb alquranul karim ngi lay jaajëfal bu baax a baax waa ji la delloo ak cant ak ngërëm tey sàkku ci yow ñaan bu baax a baax a baax rek Mbàkke bul ñuy fàtte benn yoon ndax bér nañu ne boo ñu ñaanalee rek yàlla dina nangu ñaan bi ki sa barkeb maam maam Mor Jaara Mbàkke waaye ki sa barkeb maam maam Baara Xuraja mi nga xam ne moom mooy borom dëkk bi jërëjëf sëñ ba sëñ maam Mor Mbàkke am na solo lool xam naa rek bala ñoo tàggatoo ñun dañuy indi ki nga xam ne moo di xale bi nga xam ne moo ñu war a tere alxuraanul karim balaa ñoo taj li nga xam ne moo di suñu émission xamna ñu jox soxna si ñi dende rek di soxna nday Astou Sakho ñu fekk ci ko ci fi nga xamne modi daara di daaray ci Jaara waye nak mu nekk soxna su jàmbaare mu tarni len ci ay aya alquran rek soxna nday asu bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim ar الرسل faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من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 مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا غلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم ما شاء الله فبارك الله سبحانه ولا فبارك ka fii ki euh, soxna Ndey Astou Sakho am na solo lool wala Zeyda sax lañ lay wax euh, euh, tarkala muy tout tànk di suñu rakk ñu bokk lépp rek macha allah waaye nag mu mën ñu ci côté bu ne ndax ku nekk rek boo sañoon lii nga xam ne moom la def di alxuraanul karim nekk ci sa dënn ñu ci sant bu baax a baax waajur yi nga xam ne ñooy jàppale ba ñu am sag bu doy ni bu mu ñu defal nii tarkala rek la ñuy daal di wax waaye di sant itam bu baax a baax ki nga xam ne moo ñu ci jàppale muy Serigne Mamour Mbacke am na solo lool ak Serigne Siiru Mbacke am na solo lool ñu ngi leen ci sant bu wér a wér di ko ñaanal moom nga xam ne moom moo def jëf ju rafet ji euh, yàlla dimbala la te taxawu la te musal la ci li nga xam ne moo di saytaane làq la fa yàq egut ba lépp loon naa rek alquran wala lépp nga am ko ci alquran nga am ci lu ko wesañ ko soxna Ndeye Astou ñu la koy bu baax a baax waaye xam naa rek foofu la ñu daal di jaaree daal di tàggatoo ak yéen ba beneen yoon ci beneen émission ci beneen euh, këru daara beneen sëriñu daara incha allah rabbi waaye laataa loolu itam ñu sant bu baax a baax a baax euh, ñi nga xam xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel fu ñu toll rek ñu ngi ñuy bàyyi xel euh, di ñuy jàppale itam di ñu euh, dimbale ci ci li nga xam ne moom la ñu nekk euh, moo xam ci col bi la moo xam ci waxin bi ñu war di wax moo xam ci jëfin bi ñu war di jëf ba émission bi mën di jaaree moo xam suñu techniciens yi moo xam ñi nga xam ne ñu nekk ci suñu ginnaaw làkkatu kenn xamu leen ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal itam yàlla jàppal leen ba lépp li nga xam ne bëgg nañ ko ci man rek ñu am ko ñu kawe seen ci saam eh, di saam ak sëriñ baara mom moom sëriñ Mamor Jaara Mbàkke eh, magi mag eh, ñi fekk si woon fi ki nga xam ne moo di sëriñ Mamor Mbàkke ci biir daaraam lañ nekkoon ni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daara defar sama xol daara defar sama xel dara ma def ni ma mel moo ma wéy daa